Thiès walla Kaolack waaye nag ñoo ngi dëggantaan ci biir capitale bu Sénégal yi les moto yi ñuy woowee cak-cak yi doon daw ci yooyu les régions jamono ji dañoo daal di fees del ci mbedd ndakaaru yi mu nekk toxu bi nga xamante ne li ko waxal mooy ni mbir mi doxee si biir capitale bi. des nga wàccee lu neex moom. Ah, bu dee événement événement comme tabaski bi nii bu gënee dugg nii. mu nga di wàccee vingt mille bu dul lool des fois da ngay furaatu ay cinq ay yooyu noonu rek. mu nekk liggéey bi nga xamante ne yombul ndax jafe-jafe yi bëri nañ moom mi ngi metti risque la si risque la ñuy dox. taximaan yi it mooy loolu noonu. même boo yóbbee client yi dañ lay jéem a tànc di def ne. si ñu daal di cay yokku yi nga xamante ne dañ leen di arrêté saa su nekk. si kaw tali bi. ndax ñoom boo boo boo liggéeyee 1000 francs da koy xaajoo wala nga jox leen ko toog mën nga xëy doo am essence sax yëpp benn client yaakaar ci essence ñoom ñu jàpp la te force nga joxe. ak Dakar nu mu bëriwee embouteillage yi les moto duñu tardé ak lu tali bi xat-xat du leen tere am yoon looloo tax client yu bëri ñoom la ñuy tàmm. am na client yoo xamante ne càq-càq moo leen neex. moto fi mu mënta dugg. oto mënu faa dugg charrette mënu faa dugg. dawalkat nag ñu bëri si ñoom nekkuñu en règle. ndax man mi yoruma permis yoruma assurance yoruma carte grise te terewul damay dawal. ñu bëri si yile ndaw nag si yeneen région yi lañ daal di jógee ñenn si ñoom sax si yeneen réew voisin yi leen daal di bàyyeekoo ñoom ñëpp nag décidé ñëw fii si capitale bu Sénégal ngir rek mën a amal seenu liggéey donte ne sax mbir mi doon na lu métti.